citoyens sénégalais yi euh, wér-gu-yaram liñ ci war def ci couverture amuñu ko médecin doyul parce que par rapport au ratio yi nga xam te ne bi li yoon jàpp ni dëkk bu nekk lii lañ war am ci médecin yoo xam ñooy saatu ci feebar ci lii amuñu loolu doyul on dit tey ñun nañu jël suñu xalaat nañu jël suñu jot nañ jël suñu pas-pas dugal ko ci andi suñu contribution pour dimbali nit ñi ci loolu moo waral ñu def lii euh, andi nañ fi nag euh, ci bu li wax ci spécialité manam ci ay secteur d'activité euh, sept spécialités ak don de sang li waral don de sang bi du lenn lu dul euh banque de sang yi dañu seetlu ni ñi ngi jambat ne amuñu lu war ci deret pour bu musiba naaru lay amé nan lañuy mëne indi les premiers secours motax ñun Pastef ñu ne nañu def don de sang euh, ba ñoom xam sax yéex mais diggante 12 h ak 11 h nous avons presque eu en fait 47 poches donc et on espère que loolu dina wéy ci ñi fi axi, di ñëw saytu seen yaram euh, on a eu 200 200 plus de 200 personnes yu ñëw di saytu seen yaram té on est que on est que midi et donc loolu dal moy li ñu taxawal tey diko def kuy xol beut mi ngi fi kuy xol bëñ mi ngi fi kuy xol yax yi di dàmp di ko di massage maanaam muy le kinésithérapeute mi ngi fi kuy donc neurochirurgien beeg cardiologue cardiologue beeg ñoom ñëpp ngi fi donc c'est simplement pour dire que c'était là moi ñun li ñu indi comme contribution euh, am nañ yaakaar ni waa Thiès dinañ ci def aussi don de médicaments Euh, amna pharmacie euh, la part, parce que on a deux pharmaciens qui sont là on a amené des médicaments ñoom bu la dañuy référé euh, ki ñëw xool si yaramam ci vers vers les pharmaciens ñu jox leen ay garab donc là lañ fi indi di am yaakaar dañoo bëgg nag mu wëy duñ ko fi yemale déwén bëgg nañ ko dans six mois ne serait-ce que les premières informations sur ñi ñuy référé ci hôpital est-ce que dem nañ des médecin bi et dans un an inshallah rabbi on reviendra sûrement avec plus de médecins encore parce que tous les médecins sénégalais sont patriotes. wuyu si nañ ñu ndaxte euh, liñ leen woo euh, seen njariñ la koo que ne danaan la kaay moo xool sa yaram wax la li ci nek te amul looy fay bu fekkee ne am garab bu jamp ñu yëkkati jox la bu fekkee amna fuñ la wara yabal ñu ne la demal fi Euh, kooku ku la ci woo euh, sa jàmm yaram la lay woowal donc moo tax ñoom seen bopp aussi wuy si nañu parce que xam nañ ni euh, Pastef ci lu leen di jariñ kese lañ nekk